mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen télévision Xasaay TV euh, ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal euh, gis ngeen ni ñu ko defee suba ba léegi rek euh, muy ànd ak yéen fii ci Ndakaaru ci daara Hizbut Tarqiyyah Daaru Xuddus ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii tey jii lañu ko doon ubbi muy jàkka joo xam ne danañ ko tabax ci ndigalu Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké xalif général kulu murit tey jii nag di àllarba di fukki fan ci weeru août di bis nga xam ne ci la ñu am ndigalul ki fi nekkal Sëñ Tuuba muy daloo liggéey boobu noonu muy jàkka ji ni ngeen ko gis nag ci teewaayu Cheikh Mamadou Fadal Abdul Xaadir Mbàkke ibnu Xaadim Rasul mu ànd ak euh, euh, njabootu sëñ Tuubaa ñu bëree bëri ñoom itam teewe nañ ko ak ay mbokki taalibe yu takku bàyyi ko ci biir réew mi ak ci bitim réew ñëw fii tey ci Ndakaaru ànd ak isub taraxee daara Xuddoos ci liggéey bu am solo boobu ñuy euh, def di ko defal Sëriñ Tuubaa ci noonu nag tax na ñu ngi taxaw ak Sëriñ Mbàkke cun moom mooy jëwriñu daara isub taraxee daara Xuddoos sëñ bi ginnaaw bu ma la nuyoo rek siyaar la ndokkeel la ci bis bi yan kàddu ngay yëkkati tey ci initiative bu am solo bi nga xam ne ni daara isub taraxee daara Xuddoos am na ko asalaamaaleykum kon ñu sant di gërëm baax baax Xasaay TV kon bisib moom bisib cant la cant goo xam ne day dem si Serigne Touba na nattable ñu lépp moom la ndax liggéey bii ndigalam ci lañ ko tàmbalee ci ndigalam it la suñu borom def tey jii it ñu taxaw li nga xam ne moom lañ taxaw ndax bari bañ amee yéene roy Sëñ Tuubaa ci ni nga xam ne moom la daan def nga xam ne fu mas a dëkk fu jàkka la fa a taxawal bi ñu amee yéen jooj lañ dem sëñ Sidi Moxtaar yëgal ko ko mu jox ñu ndigal nañu àllarba na ngeen ko tàmbalee. àllarba bi ñu ko tàmbalee tey jii ba mu demee ba toll fi mu toll ñu dem mu joxaat ñu ndigal nañu àllarba it nañ ko jullee dana te yabal fi ki nga xam ne moom mooy sëñ Falloum sëñ Abdou Khader. àllarba bi doon àllarba bu xéewale na ku ne xam ne sëñ Tuubaa 18 safar 1313 la demoon si géej gi waaye it mi ngi si atum tubaab. si 10 août 1895 tey jii ku ne xam ne ne c'est le 10 août kon mel na ne it euh, bis bu ràññeeku la ci li nga xam ne moom la sëñ Tuubaa doon liggéey ndax 10 août boobu 1895 ci la génnoon dem liggéeyal borom si géej ba ndam li xam ne moom la mu am ko lépp loo xam ne suñu defal na daal koy defal kon gannaaw ndigal moo ko tàmbale si ndigal la àggee it loolu moo tax ñu sant sëriñ bi liggéey bi sëñ Tuubaa ci boobu moo nekk si kanam ndax sëñ Tuubaa sëñ Muntaxaa ci boobu moo wax ne sëriñ bi ci boobu moo nekk suñu kanam te loolu du luy naat leen ne chaque jour bisu set ñi ngi yëg ne Serigne Touba moo nekk suñu kanam ñi ngi yëg ak taxaw ak gàttanoom loolu tax ñu ne nañ tàmbali gannaaw sëriñ bi moo nekk si kanam liggéey bi moo koy àggaleel boppam. te it ku ne xam ne ne moom ku man boppam la ndax yàlla sama borom mi mu doon liggéeyal dëpp na ko kàttanam te mas santaan la jëm ëllëg sëñ Ablaye nee na daan na toog nañ ma jàngal téeméeri kaamil ñu jàng ko fa saasa toog nañ ma bindal ak kaamil mbooloo mu séddee ko bind ko fa saasa kon gannaaw ma santaan la jëm ëllëg nag liggéey boo ko yëkkatil te mu wóor na moo nekk si kanam dañuy wóor na ne liggéey boobu lay sotti moo tax ñu fas yéene song ko tàmbali ko tàmbali ko ci lu néew waaye wóor na sëñ Tuubaa dana ko àggale tey jii gis nañ si ay taw fii xam fu ne di kenn nañu fa na xéwli membre yi góorgóorlu nañ ñi nekk si biir réew mi kenn ku nekk seen ñaar dërëm ak seen dërëm dajale ko ba si nekk bitim réew lépp loo xam ne luñ mën nañ def nañ ko ak ñi nga xam ne ñoo safoo daara ci safoo liggéey bi nga xam ne moom lañuy def kon loolu tawfeex gu rëy la goo xam ne sant nañ sëñ ak xéewal yu bari yoo xam ne fi mu di dikkee sax da lay loolu nattab lañu tawfeex sëñ Tuubaa rek lañ tase si biir liggéey bi kon moo tax ñuy sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax kim fi yabal yi ku ne xam ne matal lépp ndax ku ne xam ne waaye juróom sëñ Abdou Khadir mooy imaamu imaam yi moom it taxawaayu sëñ Abdou Khadir la taxaw na loolu sëñ Sidi Muxtaar mi sëñ Tuubaa loolu la wax ne sëñ Abdou Khadir mi ngi nii di sëñ Fallu la te ku ne xam ne ne moom ci sëñ sa Abdou Khadir fa mu taxawoon nag fa la taxaw kon ku mel noonu bu ko yabalee suñu bis bi sant santanti nañ bu baax a baax a baax ni ñu ko waxee sànq yi mboolem ñi fi teew di wakkar sëñ Tuubaa it ñëpp teew nañ fi ak mbokk taalibe sant nañ ñëpp gërëm na ñëpp ci tawféex gi ak ndimbale gi ci fànn yëpp kon fi mu toll nii xol mee sedd boo xamatoon li ñuy wax daal. waaw jërëjëf euh, xam naa sant yàlla bu baax rek alhamdu wa shukru maan lillaahi ala nabi wala di abdillahi euh, sant bu baax euh, cheikhul xadim sunu yaakaar te ak ëllëg ziar cheikh Seydil Mokhtar mi fi nekkal cheikhul xadim ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko te mu joxe ndigal lii itam ndax lii li muy baax baax baax buñ ci amuloo ndigal. kon du sottee nii mu sottee tey jii boole ci it ndigal li na li mooy sëñ Fallou moom Cheikh Abdoul Khadir di sunu sëriñ ñu yàgg ànd it ci lu mel nii mu ñëw jiite liggéey bi waaye tey am ay wéttal yu mat wéttal ndax Cheikh Ahmadou Badawi moom Cheikh Mamad Fadal doo wéttali ko tey waaye Cheikh Sidil Muxtaar itam moom Cheikh Mamadou Moutada góor yàlla moom wéttali wéttali ko kon bu ñu leen tuddee noonu tudd sëñ Mbàkke Cuun mi nga xam ni Euh, mooy jëwriñu daara ji te ñu yàgg seq ay liggéey yu bare bare ndax Hizbut Tarqiyyah ñun euh, mën nañ ni matuñu ci seede waaye mat nañ ci seede itam ndax naa ni tey jii war naa ci mën a seere bu baax a baax li wolof di wax nag naan yenn saa yi soppe du mën seede wala yooyu sunu cofeel ci liggéeyu Sëñ Tuubaa sunu cofeel ci xasida yi ak nin koy jànge ak nin ciy taxawee nin koy wormaale loolu mën na tax duñu mat seede ci ñoom waaye ñu ay royukaay lañu yoo xam ni képp koo xam ne daal yàlla defal na la tawféex ngay liggéeyal sëñ Tuubaa xam nga ni mën nga ànd ak ñoom liggéey sëñ Tuubaa gis nañu it euh, andi nga addi yu am solo tey euh, muy ay sijaada ak ay kaamil alxuraan ak ay xasida ndax mën nga dikk ñun tey lan moo waral nga taamu tey indi euh, addi yu mel nii waa lii dafa nekk occasion boo xam ni jumaa buy tijji moom li mu soxla nga koy indil te sëñ ku koy indil kaamil nga xam ni yàlla suñu borom rek la doon liggéeyal ku ko indil kaamil rek indil ko lu ko neex te tamit lii dafa baax ku ko def tamit sa bopp nga ko def da ko def sa mbokk taalibe tamit sa bopp nga ko def parce que ku def lu yàlla bëgg tamit sa ëllëg ngay ngay ngay ngay defar rek waa ni ko sëñ Pape waxee rek suñu digganteeg waa Hizbut Tarqiyyah moom lépp sëñ Touba la rek lépp sëñ Touba tàmbali si sëñ Touba rek lay dellu lii nag ñu def maanaam seere la rek. di wane ne ñun ku ñu mën a nekk ak lu ñu mën a defit ay taalibi rek la ñuy doon sëñ tubaa rek la ñu yaakaar moom la ñu yaakaar adduna moom la ñu yaakaar alaxira a ah, lii yàlla na weesu ba ñu dem ba mu nekk ay juma ñun ñëpp ñu ànd ci liggéey bi sëñ tubaa boole ñu ci liggéey katam yi ci barke borom tubaa ñi boole ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan ci euh, télévision bi nga xamante ni mooy ma faataxal Bichri ak Xassida TV di am mbégte nag ci bis bu màgg nga xamante ni moom lañ teewe muy ubbite jàkka ji nga xamante ni moom la xisbu euh, tarxiya Daaru Xuddus def ci njiital ki nga xamante ni mooy sëriñ Mbàkke Cuun gannaaw bi nga xamante ni ne nuyu na leen yéen ñëpp sant leen ndokkeel leen sargal leen ci bis bu tedd bi damay dikk ci euh, loolu nga xamante ni moom nga laaj di la xamant ni jëf ji jëf la ju joo xamante ni mooy ji euh, suñu borom gën a bëgg ci kaw suuf muy tabaxal ko barab boo xamante ni ci lañ koy jaamoo ndax dañoo wax ni suñu borom ñetti néeg rek la am ci kaw suuf muy xol ak jàkka waaye nag ak kaaba gi waaye nag euh, bi nga xamante ni moom moo nekk ñaareelu daraja mooy jàkka nga xam ni jàkka euh, suñu borom rek moom lañ ciy jaamu di ko ci wéetal yonante bi nag salaa salaam wax ci ay ngëneel yu bëree bari bokk na ci rek xadis bi nga xamante ne dégg nañ sànq sëriñ Murtada Buso wax ko wax ni man bana lillahi baytan banallahu lahu qasran fil janna yonent bi dafa wax ne képp koo xamante ni tabaxal na suñu boroom kër suñu boroom dana ko ko euh, tabaxal ca àjjana pale nga xam bi kon loolu ngëneel la loo xamante ni lu rëy rëy la waaye nag man li ma ci gën a seetlu mooy pasteur bi nga xamante ni moom lañ ci am ndax boo dikkee ba gis jumaa ji ni mu mel jàkka ji ak ni mu taaroo da lay ni ñi ko def pasteur lañ ko defee ndax jàkka la joo xamante ni ju mucc ayib la waaye ju rafet la nga xam ni yéene moom lañ ko defee waaye na mu amaan na beneen jàngat boo xamante moom lañ ci jàngate mooy dafay wane ni rek Serigne Touba képp koo xamante ni dégg nga ko toppe ko ni nga ko war a toppee sa mbir yëpp ci lii lay jël maanaam mooy lislaam joo xamante ni ju weex tàll lay doon waaye dara du ko kooj kon nag xol bu sedd rek ak mbégte moom lañ am ci bés bi di ñaan nag suñu borom mu nanguñu liggéey bi képp koo xamante ni jull na ci jàkka ji di ci suñu borom digge suñu borom bu ko teg ko ci sa loxo ci barki Serigne Touba di sant ñëpp di gërëm ñëpp. ñu teewal suñu kilifa suñu yaakaar suñu buntu sëriñ Touba di Serigne Hamzatou Mbacke moom Serigne Chouaïb di ko jéem a teewal fii ci bis nga xam ne bis bu fonk la di ñaan a Cheikh Sidi Mokhtar yàgg fi lool te ak mboolem ku mu àndal liggéey Serigne Touba rek mu mel ni nag bis bi mbégtam lislaam bépp la. mbégtam yoonu murit bépp la. Euh, mbégte la goo xamante lislaam bépp am na ko ndax day tegtale ak ngëm yàlla gu wér ndax sunu boroom wax na ci alquran baada audu billahi min shaytaani rajim innama yaamuru masajid allahi man amana billahi wa yawmil axir ñi gëm yàlla dëgg dëgg dëgg mooy ñi nga xam ne dañuy dundal jàkka yi sunu boroom yi ak di jàng alquran ci laab akuk teewlu kon lii day wane rek ne ñoom ñu gëm yàlla lañ ay murit saadix lañ kon nag ñu leen di ñaanal sunu borom. ci barkeb sëriñ Touba ñu ñu ñu àggale ko foo xamante ni seen kawe nag seen njort ba ñun ñëpp ñu bokk njëriñ li ñaan kon suñu borom boole ñu ci aba bépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi euh, taxaw ak ñenn ci suñuy wayjur ñu gën ci ràññee El Hadj Madick sek moom itam nekk koo xam ne ku ràññeeku la ci yoon wi bokkit ci membre fondateur yu daara Hizbut Tarqiyyah euh, nekkit koo xam ne ku yàgg kon ci liggéey bi kon xam naa sama baay ginnaaw mu la nuyoo si yàlla rek tey jii bis bu am solo bi boobaag léegi mbokk taalibe yi jóge fu ne ci biir réew ak bitim réew euh, euh, en tant que taalibe ban jàngat nga ci def ak lan ngañ ci mën a dolli ci loolu aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sëriñ bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bis bii nag bis boo xam ni dafa sori ci ñun lool ndax daara xisbu tarxiya tey jii seen jàkk ji nga xam ni moom moom la ñuy fii la ñuy daje di fi liggéey di fi jaamu yàlla ak daara ji nga xam ni fi lañu ñuy liggéeyal borom Touba bu fekkee ni tey jii ci ndigalu seen Siidul Muxtaar ñoo ngi koy inauguré tey jii day nekk lu am sore lool ci ñun ndaxte dañuy sant bu baax alhamdulilah rabbil alamin bi nga xamee ni ñun ñii fi taxaw nii yàlla dogal na mbooloo mi ba muy ba taxaw ci 1976 75 76 ñu tuddee ko daayira des étudiants mourides yàlla dogal na ñun ñii la woon sant nañu El Hadj Mor Thioune nga xam ni ñu nag moom loolu ànd ci liggéey bi booba sëñ Ismaïla Diop ak borom Touba Touré mi ak Serigne Djili Niang mi nga xam ne yëpp ñoo bokk fa ñu naane waaw ñoo ngi bokk fa ñu naane ci sëñ Ablaye Khadim saar Sandar daayatul mubaaraka li Aliou Khadimi bila musharak ñoo ngi sant ñaan yàlla yàlla nañ fi daje ay yoonu yoonu yoonu yoon ci barke borom Touba wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu jullit jullit jullit julli mooy mandargaam julli waxtu yu juróom di ñaan julli rek jullit moom julli ñu ji ne moom dañ koy rafetlu di ñaan yàlla lépp loo xamante ni ñu ko sumb def nañ ko fi yàlla nañ ci gis lu kawe seen jott ci barkeb Serigne Fallou Mbacké yàlla na yokk lii moom yàlla na doon ay yeneen yeneen yeneen dund ba jàkka ji nga def nañ ko def fi internat ñu bari wàcce ci alxuraan ñu bari jàng fi xasida yu set yu sell ba am ci ngërëmul Serigne Touba ci barke Cheikhul Khadim ndax lii moom dëgg yàlla yéen du ndamal daara ji ndamal ndamal Serigne Touba gannaaw yàlla moo dogal ne ku tabaxal yàlla néegu yàlla ya nekk na néeg boo xamante si àjjana kon ñun waa Hizbut Tarqiyyah Daaru Xuddus yàlla may nañu néeg boo xamante si àjjana kon gën a rafet njort rek gën a defar suñu bàmmeelu ëllëg rek ndax bàmmeelu fii moom chaque jour yàlla mi ngi may luñ ci def kon nañuy liggéey suñu bàmmeelu ëllëg te lépp rek ci lii la mën a demee wasalaamaaleykum warahmatullah bisimilah barke borom Tuubaa ah ñu ngi siyaare mbokk taalib yëpp di siyaare ne waa Qaça'id TV di rafetlu seen liggéey bu baax a baax ah bis bi moom mbégte rek lañ ci ak di santaat bu baax a baax a baax sëñ Sidi Maxtaar di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax ku ne xam na ni li nga xamante ne daara ji noonu la taxawoo liggéey bi ca ndigalam lañ ko tàmbalee bañ ko tàmbalee ci ndigalam ak ay ñaanam fekk na ci ba wax dëgg yàlla liggéey bi dox na jéego yoo xam ne nii sant nañ ci bu baax a baax a baax a baax ci fi nga xam ne fa la liggéey bi toll ah ci loolu it ñuy sant sunu mbokk taali bi nga xamante ne ñoom lañu ñu ànd ak liggéey bi muy mboolem membre yi nekk ci biir dakaar li nga xamante ni kenn ku ci ne chaque journée yaa ngi ci def pësteef di ci wane yéene lépp lu ñu wane woote rek ci wàllu liggéey bi bu dee tabax la bu dee yëkkati móol la bu dee kuule la lu mu mën a doon ñoo ko àndandoo saa su ne waxtu wu ne ñu di ko def moo xam samedi lañ ko jàpp wala dimanche wala bis bu mu xam ne répétition moo leen indi woon sax ñu mujj koo dagg ngir ngir liggéey bi loolu lépp ñu def ko ndax liggéey sëñ Tuubaa bi ñu ko jàppee nga xamante ne ñoo nekk ci bitim réew xam gi ñu xam ni ñoom dañoo ne ci biti te seen yéene lépp ak li ñun ñoo ko bokk di liggéey sëñ Tuubaa moo tax saa sune ñuy nemm ko fu liggéey bi toll kenn ku ne ci ñoom saa su ne yaa ngi xëntewoo loolu dajale ba yónnee ko ci defal leen ma ko ci liggéey bi daam duguma la gis nañu ne euh, mbokki taalib yi nga xam ne nii yéen a ngi nekk ñoom fii ci euh, peggu daara ay dëkkandoo gis nañ ni am nañ taxawaay bu am solo boo xam ne nii def nañ ko ci liggéey bi ñooñu tamit ñoo xam ne ñu jarabel ak sant lañ waaw waaw waaw loolu moom liñ ciy njëkkee tax sam tàmbali mooy mooy di leen jéggalu ndax wàllu dëkkandoo ak koo xam di dangaa nekk ak ñoom ñii mbooloo sax saa su ne ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy wax di yëkkati di leen am looloo xam ne xëy na sax ci wàllu ak dëkkandoo mën ngaa jàpp ni li jiitu ci ñoom mooy di leen jéggalu ci loo xam ne xëy na def nañ ko yëguñu yëg nañ ko wala yëguñu ko loo xam ne nii xëy na neex na leen wala naqari na leen ñu ngi leen koy jéggalu ba pare di rafetlu nag seen taxawaay ak seen tolluwaay ndax saa su ne ñuy rafetlu daara ji nekk mu nekk seen biir jàkk ji nga xamante ne taxawal na ak liggéey bi nga xam xamante ne liggéey na ko ndax ñoo xam ne ne xëy na ñii yenn barabu liggéeykaay moo leen fa indi waaye wala yoo xam ne nii xëy na dëkk fan dëkk sori na ñu ñëw fii ngir noppalu waaye lu mu ci mën a doon rek ñu ngi koy rafetlu ak di luñ ci mën a dem di ko muñ di ànd na xam ne ñun li ñuy def fii lu baax rek la te bëgg lu baax moo tax ñu di ko def yàlla sunu borom def ci yoon rek ñu ngi ñaan yàlla mu boole kook ñoom mu boole ñu kook ñoom dégg nañ léegi yaa ngi soññee lu am solo muy mbokki taalibe yi xam ne liggéey bi day continuer nekku rek jàkka ci la ñuy yem euh, yan kàddu soññee ngay euh, soññ mba mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi aj ci daara ji tey dégg sa kàddu rawatina gën a jaayante waa ci liggéey bi ak it gën a yeesal pas-pas bi mooy li ñu waxoon rek di xam ne gannaaw suñ Tuubaa tax euh, gàttandu nañu ba liggéey bi fii ñu yegg ñu xam ne li ñu ko yeggal mooy suñu ñaar dërëm suñu dërëm suñu juróom loo xam ne kenn ku na ci ñun def na ko ci ak ñeneen bitim réew lépp ba lii àgg na muy jàkka ji kon nag li ci topp te ku ne xam ne sëñ Tuubaa tamit wala njàngale lu mu jëkk a la te lañ fi bëgg a taxawal suñu gone ay gone jullit ay gone gone mbokki taali bi dafa mokkale alxuraan loolee nag dañu bëgg góor ñu góorgóorluwaat yokkaat jéego yi takkaat laxasaa yi ba li aju finition bi te gën a liggéey foofu la toll finition ku ne xam bëgg lu gën a metti ci bâtiment la ñu góorgóorluwaat gën a laxasaayaat bi lépp ñu mën ko matale ndax soxla nañu wàllu carrelage soxla nañu ay porte ak lu jëm ci wàllu peinture ak décoration lépp loo xam te nii ay équipement wu daara la ci internat bi fi nga xam ne xale yi fa la ñu war a tëdd ci seen matelas ak yooyu yëpp loolu incha allah bëgg nañu phase bi ñu ñu toll nii ñu ñu ñu ñu ñu ànd koog ñëpp rek kon di ci woo ñëpp ñu gën a fedd la waa laxasaay te xam ne ndamal sëñ Tuubaa rek lañ ci bëgg